asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 11 août 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu làmb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi moom tey fi mu xëy ñëw ci ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo daal la xëy tey topp ci wàllum daal carrière ak taxawaayam ak sax ay secret li ko may tey mu réussir ba nekk li nga xam ne moo di roi des arènes mu mel ni ki nag yëglikaay bi ñëw na ci wàllum régularité maanaam daal weg ga mu weg la nga xam ne moo di entraînement ak yi nga xam ne nii ya ca xeetoo la ba tax na tey Modou Lo tey fi mu ne ci lamb ji mu yegg si fa wala li mu téye tey ci lamb ji mu téye ko mu mel ni nag ka kay tàggat moom di Pape Mbaye ci moom di Moodu la mu xam ne daal nee na li ko may li mu yor du lenn lu dul fonk li muy def te itam nekk na mbër moo xam ne entraîneur ba mooy wax de moom Pape Mbaye nee na Modou Lo du tricher maanaam lu muy def lu mu mën doon ci àddina daal dëgg lay doon ci moom Pape Mbaye la wax la nga làmb ja nga xam ne jàpp na ne ca la nekk di ca yëngatu moom moo wax loolu ci ki nga xam ne moo di Modou Lo yëglikaay bi tamit bu nu continuer ba tey ñëw na ci ay combat yoo xam ne taxaw na muy Sa Thiès ak ki nga xam ne moo di rëg-rëg wala boog Sa Thiès ak Garga guy guy gi ak rëg-rëg mu mel ni que nag moom yëglikaay nga xam ne ñoom la tollool wala ñoo xam ne war nañu bëre ak mool ñooñu saa suñu xëyee daal ñu di ko gën di sori wala boog ñooñu daal fi mu nekk ni moom sori nañ ko loolu yëglikaay ba xëy tey ñëw wax nu ko guy gi moom diggante ba ki nga xam ne mu di rëg-rëg sunu làmb xamal nañu ne nag li am ba des léegi moom bay wéy na mbuus ndax encaissé na la nga xam ne nii moo di avance ba diggante mag rëg-rëg daal léegi moom c'est officiel lu ñu war a bëre la am na ñeneen ñoo xam ne nii moom jàppal yëgle yëglikaay bi xëy na ñëw ci ñoom wala keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom ñuy ñaar moo xam Ousmane Gandigal la wala Ablaye Ndiaye bu dee Ousmane Gandigal moom diggante ma ka nga xam ne moom moo di kal wala kool bu sab daa ñàkk combat ba jóge ca ñu jox ko pàccaam mel ni foofa tamit combat ba mujj ko gagné Ablaye Ndiaye moom yëglikaay bi daa ñëw ci moom jàpp na ne depuis atum 2016 ba tey gisuñu ko mu takk ngem bëri ci làmb ji saa yu ñu xëyee nag ay mbiram ak jaaxle di ca gën a am sunu làmb xëy ñëw wax nu loolu leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci muy école de Mor Fadam ak seen combat yi nga xam ne bëri nañ ko yëglikaay bi na neuf défaites daal am nañ ko ak wala boog neuf victoire la ñu am ak li ñetti defet ak benn match nul mel ni école Mor Fadam moom soo bëggee dégg-dégg bilan ba moom bon na ba yegg ci lool moo tax ngay lum moom jàpp na ne day bii bilan moom nekkul bilan boo xam ne bu baax la maanaam la ñu bëre moom wala résultat yi moom nekkul résultat yi nga xam ne yu gën la yëglikaay bi ñëw na ci école bi ak ka nga xam ne moo di Pape Mbaye ma nga xam ne mu nga ca Espagne Pape Mbaye numéro 2 ki nga xam ne moo di Fifty Cent la moom moom juróom-benn at a ngi yoo xam ne kenn gisu ko ak ay bët mbaytin tamit teglante li nga xam ne nii moom moo di ay defet wala boog ay mbiram moom itam doxatul nam doon doxee Eumeu Sène Junior nag moom daa mel ni xaw naa dalal xel ya waaye am na fa ay xale yoo xam ne moom bés leen bàyyee xel ci kanam mën nañoo def dara moo xam caatu fadam la guy gi de ak bébé diwaan wala bu sitta ñoom daal daa mel ni ay avenir lañ ci école de ba nga xam ne mooy école de lutte bu Mor Fadam feneen foo xam ne soriwu ko wala keneen koo xam ne soriwu leen muy Aziz Ndiaye moom ñëw na ci ki nga xam ne nii wala combat bi ku gën a la mu ne daal na Tafa Gueye ak Balla a ma mu choisir nag na du kenn ko dul mu muy supporter la wala mbër mu kon neex la Aziz Ndiaye moo wax lool ci sunu làmb ba tey bu nu continuer dem record record moom léegi nag ñëw na xëy nu xamal ne day léegi leer na nañ diggante guy gi ak rëg-rëg combat ba moom finalisé nañ ko maanaam gaaya encaissé nañ la nga xam ne nii moom moo di avance ka desoon muy guy gi jël na avance am ka ko fa teewaloon di Abdou Khadir Wade ñu naan ko jili Wade encaissé na moom nag moom jàpp na ne daal fii li nekk li am ba des moom lépp loo nga xam ne nii waxoonte ne woon nañ ko ci ay négociation jëm ci combat bi moom nee na ñu tëgg combat bi muy waa GFM respecté nañu mbir yee ba mu mat sëkk sëkk sëkk ki nga xam ne moo di Palla Diop moom yore Reug Reug moom itam daal xam ne na daal am nañu combat waaye waaye nag la ca teg kon li am ba des daal préparation combat ba moom maanaam lu jëm ci wàllum communication bi léegi mu démarré maawo Cissé ma nga xam ne nag mooy coordonnateur ba moom maawo lam lu xam ne daal lenn la nee na li am ba des daal jàppal li nga xam ne nii moom am ci boobu combat moom mbirum di ci wax ci wàllum finance ak ay xaalis ak yooyu moom maawo nee dafa teel nañ bàyyi ba ca kanam heure bi lañ ko war a wax leneen loo xam ne waras na caa wax wala keneen koo xam ne nii wax na ci yëglikaay bi di record muy Max Mbargane ak bilan bu baax ba nga xam ne écrém def na ko ren père nag la mu jàppale daal moom père Max la mu xamle na du léppi kenn lu ne ku ne la maanaam ku ne da nga caa dugal saw mbir mbir ma mën a nekk lu réussir maanaam daal lu ñëpp dugal seen ay loxo la moo tax mbir ma réussir leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ca mu di dëj boo xam ne amoon na fi bokk jëm ci man mii di wax daal la xëy tey di ko jaale bokk wala mu jàpp ne waaye nag olof a ko wax ku juddu dee wala boog yàllaa ko wax xanaa kay ku juddu moom faw nga faatu waaye lu mu ci mën a xew bu ñëwee nag dañ koy gérer rek muñ ko te yàlla tax ndax ñi dee ñàkkuñu fayda ñi fi des itam mu sunu kon waa sunu làmb ñoo xeelu mel ni ki noonu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 réussir dana nekk lu war a yomb parce que tamit nit ki moom olof da koy wax rek ndey yàlla yàlla bay sa tool mu ne damaa bëgg dara ba pare te loola la mu laaj du la ko jaral moom nag suñu waxee rek te yàlla tax wax li ñu gis si moom diraa mu duggee si làmb ci atum 2006 su ma juumulee ba tey ñu nekk si atum 2020 mm. yàlla nañ fi yàgg te gudd fan ñëpp barke yonent bi sallallahu alayhi nekk na mbir mi nga xam ne mu sérieux lu muy def mu tamit teg ay mbiram la ci yoon par rapport ak li sport bi di laaj ci li ñuy gis si moom loolu nag soo ko dajalee am encadrement déggal leen mm. mu jaral la mën a ah, li mu am lépp tricherie moom lépp loo ko dugal lu ne Ndeye Coumba Fall yàq nga ko addina moom lépp looy def moo xam làmb jalaak micro bi nga téye ak liggéey maanaam lu doomu aadama tricher ah. moo baaxul mooy faux maanaam naa fekk yàlla nañ ci yàlla musal parce que euh, pour man tey boo ñëwee Ndeye Coumba Fall lii la loola nga wax na doon loola parce ma doon dégg ñu ne suñu Cheikh Mbacké Gaynde Fatma yàlla na yàlla yokk leen taf ñu ci barkeem daan na wax ne mm, wax mu nekk yàllaa ko man waaye man Cheikh Mbacké lu ma wax nar naa ko nit ki lépp looy wax wala nga koy def rek nan lekk noo nar wala loo fas yéene def parce que bu ko defee rek ci la nga ci nga mën a amee réussite mais bu dee tricher rek def ay njuñ ay dugg fii Ndeye Coumba daa ñuul na ñuul waaw yooyu wóorul quoi Babacar nag nee nañu alhamdulilah rabil alamin combat guy gi rek rek taxaw na jot nañ dem seen am waaw démb de waxoon nañ ne waa TFM waaye dafa mel ni tamit li ma lay wax rek combat boo xam ne combat bi ni mu demee rek il faut yoon quoi dafa yàgg yoon mais nag yàlla def na enfin comme li ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamin santaar yàlla bu baax waa parti yi ku ci ne jël nga la ñoom ci wàllum wax ju njëkk ñu ñaan yàlla rek ñu réussir ko di féliciter sunu frère xam ne nii Mao moom lañ teg ci kaw parce que tamit du doon mission bu mu réussir ko parce que comme li ñuy wax rek ñun duñu waxal lu ñu xamul mais gis nañ ci moom discipline ak dal ak fonk liggéeyam ak respecté ko trop parce que fekk nañ ko waaw ba tàyyi muy liggéey mais nag nit bi nga xam ne daal bu sérieux la kon li nga xam ne moom lañ teg ci bopp bi mu koy manager mm. yàlla na ko yàlla defal ndam ci loolu ba mu réussir combat bi ak yeneen Amine Babacar ne ñoo ne nag euh, si bilan yi sunu lam commencé na bilan bi ginnaaw nag bu saison bi arrêté ndax coronavirus bi mhm. nee ñu école bi daal am na 9 victoire 15 défaites benn nul muy école de lutte nem si yàlla mor fa dama Babacar waaw combat yi de macha allah ci côté combat moom da nga naan manager bi fexe na ba mbër yëpp bëree parce que <laughs> bi corona bi commencé bi mu a am 15 combats ak rek ak 9 victoire ak benn match si niin dire que liggéey nañu euh. ci ay combat bëril nañ ko mais euh. la des mooy résultat moo baaxul lii nag li ko indi comme li ma la waxoon rek laa lay waxaat liggéey moom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di ay xale bëgg a nekk ay mbër li mm. équipe bi di laaj wala li mbër di laaj il faut ñu nangu di ko def mm. parce que moo leen di permettre ñu mën a yegg ci niveau bi ñu soxla mais lii moom yaakaar naa ne il faut ñu xoolaat parce que vraiment kaa kaalal la kaa critique <laughs> ni ñoo nag si Ablaye Ndiaye moom tamit kaawam tamit doy na waar lool nee ñi depuis 2016 daal wàccul tekk ngay ma Babacar. waaw ku war a bëri su ma jumul Gris 2 la mujj bëri ba tey ji mm-hmm. gisaatuñu ko mu nekkoon ci mbir ne man am na ay jamono seet seeti naa ko fi ba nekkoon ci blessure ba taaw sax su ma jumul am na lamb boo demoon palmarin la xaw ma waaw jot na faa waaj mais jotul la bëri jotul la bëri dafa tardé waaw eh, voilà dafa tardé woon kon yaakaar naa itam te bokk na ci lamb parce que ñu ngi ko doon xaar fu sore sore ci lamb kon ñu ñaan yàlla rek li ko téewoon yàlla na wàcc ba mu ñëwaat compétir comme ay moromam. Mhm. Euh, sunu lam tam ngi ñuy wax nag ne euh, ki nga xam ne mooy Forza Forza moom tamit kaa xaw na critique parce que nee nañu ay peeram nañ ko laajee maanaam ñi a bëri daal ñoom ñëpp kenn bëriloo ak moom muy Sa Thiès Garga rëg ñu koy sori ñu a bëri a sori ndax boo bëggee dëgg ñooñu seen i combat dafa te moom amagul combat mhm. ah na xaar rek yaakaar naa ne ci mbir yi la bokk te itam champion la ndax yaakaar naa Forza moom kenn du laaj mën a bërim kenn du laaj mën a xeexam te itam bokk na si écrit kon yaakaar naa su patienté tuuti du ñàkk dinañ ko trouver ak moom aha ginnaaw nag bu suñu laamee euh, joxe information wu euh, face à euh, guy gi ak rëg taxaw nañ combat record tamit ñëw na si record tamit ñëw na si lu nga xam ne moom mooy nee nañu écrit rock énergie nee ñu paradoxe paradoxe mooy dafa xaw a doy waar roi ba fa la nekk jël nañu roi mais daal écrit ba bilan baaxul waaw waaw mais bu ñu ñëkkee jëkkee ci mbirum guy géeg Reug Reug moom daa mel ni comme ni ñu waxoon sànq rek biyee hmm. moom teer na record ñëw na bi la siy dugg Pala Diop na ne am nañ waaye waaye ay wax yeneen ñi na ca ginnaaw la Jili Wade moom wax na itam kani daal ñoom seen combat fi mu nekk nii jël nañ ko lépp la jël waroon am ci négociation respecté nañ ko muy lu am solo Rock Énergie nag ah loolu moom comme li ma la waxoon rek laa lay waxaat am nañu roi des mais nag taxul mbir ya dox la koy teree dox nag ab liggéey la ci ñi ko seq ñëpp ndax écrit ñi ko seq dafa bëri mbëri yaag supporter yaag encadrement technique baak administratif ba ñëpp a ko seq loolu nag ak waa ñi ñu dëkkal ca parcelle ñooy xool la leen manqué ñu liggéey ci biir mbir mën a avancé ah, di Ibou Diouf neeñ daal si euh, muy nekk manager ak énergie nekk aussi si magu si ki nga xam ne mooy Modou Lo neen daal c'est c'est catastrophe la daal waaw catastrophe la du lu gën waaw mais li ma la wax la rek la ñuy war mooy encadrement technique ba ñàkkul seq ñëpp comme ni ma waxoon sànq rek ñu toog waxtaan. Mm-hmm. manager ba ki nga xam ne mooy Max Mbargane si Lansar comme que démb ne woon nañu écurie Lansar moo jël pee nee ñu nag tey na jox nañu kàddu ki nga xam ne mooy Max Mbargane nee na daal. travail d'équipe la ñu ngi siy kontaan bu baax si pay bi. wax wax na dëgg loolu moom am na loo xam ne soo amee du kenn rek kenn lépp ñëpp lay doon. maanaam mm. ko liggéey yaakaar naa ne Lamsaar itam comme la ma la waxoon rek bañ ko sosee ba ñu am mooy yàggul waaye nag tey booy xool yëpp mbëru grand combat da dem na ci bokk na si ñu ko ëppale te tàmmoon nañ tamit bi ñuy doog a débuté dina ci kaw dem a wàcc mais gis nga xeexaat nañ ba ñëwaat ne ci kaw nekk premier loolu permanence wax am na mbooloo la te mbooloo nag mooy doole ndey ko mm. Babacar nag si kàddu yoon leen tàggoo di jox di daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay merci nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane ne chéri euh, Khadija Diallo DG Brahma nuyu ki nga xam ne moom mooy euh, Asek chéri Khoudia Seck depuis Italie nuyu nga xam ne mooy Abdou Gueye Baye Fall Diamagan papa yi Sita depuis États-Unis aussi maa ngi nuyu di profité nag di jaaluwaay ki nga xam ne mooy euh, Khadija Diallo ki nga xam ne moo ñàkk maamam bu jigéen mu tudd Awa Cheikh Wan nu koy rob tey si Kaolack di jaale Eva Diallo di rak di magam ñoom ñëpp si passé asen ni Babacar yal na yàlla yërëm ku wéy kooku dawlu yal na ko fa amiin xarabal wa sallam comme ñu xare àddina moom noonu la tëddee di nuyu internet yëpp waaw di leen ñaan jàmm bi sàkku ci ñoom dañ wax ne lépp lu ñuy wax rek ñu ngi siy bàyyi xel moo xam dañuy critiquer dañ siy bàyyi xel moo xam dañuy encourage parce que loolu moo am ci àddina ki la naan defaral sa toogaay dafa bëgg rek nga gën a avancer mm-hmm. ki lay wax ne la encouragé bu ko daa bëgg nga kon ñoom ñëpp ñu ngi ñaanal jàmm mais sentel di mbër nekk jalamsaar nekk France maa ngi maa ngi koy ziar bu baax a ma yi nga xam ne daal ñu ngi suivre fu ñu a nekk rek bu ngeen fàtte xam nga ak ku ci mën a doon rek Babacar lay bëggee xarañ bu Médina di suma rakk di suma xarit moom tamit maa ngi koy joyeux anniversaire laa koy wax ndax démb la woon bisu anniversaire am di ko ñaanal jàmm mu ngi si dëkku naar yi di ñaan yàlla tamit yàlla na ko yàgg a fete ay at yu bare bare barke na dibi sallallahu alayhi wasallam su ko nuyoo nag nuyu naa képp kuy supporter bu Modou Lo ndax moom bu ko xam xam ko ak Modou Lo di ñaanal jàmm Sénégal day ko ma fal